ñoom ñaar jéggi na su na jël na Tapha Tine na Tapha Tine a ngi dóor ci suuf attention Sa Thiès ak Boy Niang internet Leewtoo TV di leen nuyu bu baax a baax a baax di kontaan ci yéen di am mbégte jano géen chaque jour di leen indi li gën a fas ci xibaaru làmb loolu suñu yitte ci noonu damay jël nuyoo bi jiital ci borom kër gi di Pape Thialis Faye di ko nuyu bu baax a baax te di ko ñaanal jàmma Bamba moom papa Bamba partout maa ngi leen di béggee bu baax Mbaye Babacar danga maa daal di fay ñu ñëw leen di gën a fës ajaratu Ndeye Mbacke Diop maa ngi lay ziar la fay di la ñaanal bëccëgu jàmm di nuyu tamit suñu mbokk yëpp yi nga xamante ni bii jamono bii ñu ngi ñuy topp ci Leewtoo TV di leen ñaanal jàmm ak salaam wante di ko sàkku ci ñoom tamit di ko sàkku ci yéen te noonu nag den fàtte revue bi chaque jour Ibou Jador moo leen koy may ak gàmbu àndala ah. au Kayar ndox bi ñuy aar tey ji samedi 12 juin 2021 journal suñu làmb moom xëyee ci xëtam mu njëkk comme xëyee nag 4 combats ya Balla Gaye numéro de daal di engagé devant ki nga xam te ne mooy suñu papa Gaston Meng nee na Mbaye Babacar 4 combats yooyu nag moo tax Balla Gaye numéro 2 nekk hors ci titre roi des arènes ba ba 2023 incha allah. li waral mu wax loolu mooy euh, ñeenti adversaires yi mu war a bëreel yépp fii ba 2023 incha allah kenn yaru ci couronne euh, li nga xam ne moom mooy roi des arènes kon mën nañ jàpp ne Balla Gaye fii ba mille 2023 couronne roi des arènes moom daf koy dégg rek wante du ci mën a jot gannaaw ba nga xamante ne bii ñàkk na ko ci euh, ci atum deux mille 2014 kon mën nañ jàpp ne fii ba mille 2023 moom Balla Gaye couronne euh, roi des arènes moom mën nañ ko jël tegew ko ne le moom bokk ci ba tax ne ko orge oh, kañu fisale na combat bay am diggante mbay guy gi ak nga xam ne mooy Mame Balla régularisé nañ ko démb ci CNG promoteur ba nag le 3 juillet la ko app mbay Babacar mu nar a nekk combat bu neex nar a nekk combat bu metti di amee foofu ci stade Iba maar Diop diggante mbay guy gi ak maam Mame la ñoom ñaar ñëpp ñu nekk ay mbër ya nga xamante ne bi ñu ngi ci wàccaay bu metti mbay guy gi nee na moom pare na ci côté yëpp baal la rek lay xaar arbitre suuf la génn diggante ak moom mu jëflante ak moom daan ko ci jël ba nga xamante ne bi amul benn werante Mame Balla tamit ne ko dama soxla combat bi te incha allah bu arbitre bi soufflé di nga ci xam dara. beneen combat ba ñuy xam dara ca dimanche féete Gambia people lu dox ci diggante France ak Leket Baara dañ cay xam ne nag mooy règlement de compte boobu moom kenn mënu koo éviter ci ñaari mbër yooyu Mbaye Babacar. mu nar a nekk bi bu metti diggante Leket ak France di amee foofu ca Banjul nga xamante ne bii jamaïcain boroom jam production moom moo ko tëgg Leket Baara nekkoon. Euh, roi des arènes ñàkk couronne bi bëgg jëlaat couronne bi nag ci ki nga xamante ne bii moom mooy euh, France nee na combat bi jaral na ko lu nekk te lépp la nga xamante ne bii war na koo def ci combat bi dina ko def France nekk star bu Banjul moom tamit euh, war a ñëw wane xaar kanam ba nga xamante ne bii ñëpp ko war a ràññeewaat war a dëggalaat boppam ci làmb ci te noonu nag ginnaaw ba adversaire am ba amee ay gaañu gaañu ba tax ñu na a reporté combat ba doon dox ci diggante Fils de Balla général Malika nag mu ngi xëy di àddu ci journal suñu làmb la muy xamle promoteur ba nag di Aziz Ndiaye Assane Ndiaye nee na ko man maa bañ maa lànk dootuma bëri teg Fils de Balla le 13 juillet bu xasee ba jàll. gannaaw ba combat ba amee gàllankoor mënatu la nekk ñu doon dox digganteem ak maam Góor Diouf euh, maam Góor Diouf ak kii di promoteur bi tamit déggoo wuñu Assane Ndiaye euh, général Malika bi nga xamante ne bi Assane Ndiaye moom moo ko tëgg journal bi ñëw sekk ak moom waxtaan ne ko bi nga yëgee ne combat bi dafa fomm lan nga yëg mu ne. mbetteel bu rëy rëy laa ci am ndax ku nekk xam ne ne préparé combat def ci li nga li nga ci war a def ba moom des ay fan yu néew ñu ne la combat ba fomm na dara gënu koo metti nee na am na ci mbetteel bu baax a baax te li mu xam la mooy le treize bi bu jàllee dootul bëreeti ak ki nga xam ne moom mooy fils de Balla Fils de la mu ngi noonu ni ko ñaanal tan bu ba baax a baax a baax moom mbër boobu ndax hmm. feebar moom ak gaañu gaañu ci lañ ko fekk ay nit kese lañ ca noonu nag lamb lu simple bañ jëm feca Joal Fadiouth samedi bi Yékini nag la mu fay teg mooy mise 3 millions Mbaye nii Yékini le roi des arènes bi fi nekkoon war fa teg ñetti millions tegal ko mbër yi nga xamante ne bii ñoo fa yéene daje ñu fay xaar nag lu tolloog euh, téeméeri mbër ak ñaar fukk gannaaw ba mu jógee ñaaxar tëgg fa tournoi bu mag tournoi bu neex ba nga xamante ne bi amateurs yi kontaan nañu ci kon mën nañoo jàpp ne foofa ca Joal Fadiouth tey làmb dana fa dekki ba muy dekki nag Joal Fadiouth fa mu nar a neexee nag di Fatick dëkk bu Ba ba ca noonu kii di Ndeye Ndiaye Tyson daal dina fay teg mise 5 millions tant di koy duppee borom dëkk ba di Matar Ba ministre des sports Ndeye Khady Seck la ci àndal chargé de mission ministre des sports mataar Ba mu nar a nekk euh, galaa ba nga xam ne foofu ci Fatick lay am wax nga ko sànq mu teg ci euh, juróomi million ku ne xam ne ne mbër yu mag yi fu ñu dégg mise bu mag fu ñu dégg juróomi million ñoom ñëpp ay takk seen ngemb dem bëre ji kon foofu ca Fatick tamit mën nañ fa xaar làmb ju neex ja nga xamante ne bii mën nañ fa xaar ay punkal beneen lutte simple bi am fii ci ndakaar Jal Diop septième journée nag Adrien Senghor Mbaye Babacar dimanche lay amee Abdoulaye Diop moo ko daal di taxawal daal di koy teg mise un million. moo moo jiite sum production. fa yéene amal làmb foofu ci adresse Senghor bi nag mooy septième journée yi ñuy amal foofu ci adresse Senghor gannaaw ba fa ba fa ki nga xamante ne bii moom mooy maam koor euh, tëggee ñaari yoon maam Thiara Thiang tëgg fa tamit Jo Mbassa tëgg fa association de adresse Senghor tamit tëgg fa euh, ki nga xam ne moom mooy Ablaye Diop patron sum production incha allah dina fa teg. un million foofu ci adresse Senghor nekk place bu neex a seetaane làmb parce que booy seetaan mbër yi day mel ni yaa ngi dend ak ñoom sa diggante ak mbër yi mën naa ne deux mètres rek mooy dox sa diggante ak mbër yi loolu nag amateur dañ ci kontaan dañu ñu gis dañuy seen reporter yi aussi di kontaan ndax dañuy mën di commentaire. wallaay wallaay làmb boo ko jegee rek mu neex. mu neex lool ca noonu nag Paala Diop ginnaaw naqare tiis ba daanu ci kaw mu ñàkk waajuram bu jigéen lutte nag làmb axlu làmb yëpp daal nañ fay dem daal di koy jox seen njaal Mbaye Babacar. yaayam moom mooy mama Nogoy Mbaye génn àdduna axlu làmb yëpp daje fa bokk ak li nga xamante ne bii moom mooy tiis bi dal ci kawam. parce que àdduna noonu leen koy wax ay nit boo leen di ànd lu ci dal kenn kii day mel ni ñëpp la dal ñëpp àndandoo di ko jaal yaayam jooju génn àdduna di ko ñaanal suñu borom yërëm ko te jékkal ko. te noonu nag journal record lañ jëm ginnaaw yàqu-yàqu teef ak coow la amoon feccu cosaan Pape Thialis Faye nag di boss Leewtoo production Leewtoo TV daal dinay woote ndaje feccal lu koom ya woo ñaari parti yëpp Mbaye Babacar ngir waxtaan ak ñoom ñu càmbar càmbaraat li war a am ci diggante face to face yi amee. El Hadj la woo agent. bu tafaatin ak burxaan wàdd mi nga xamante ne bii moom mooy ménager Boy Niang ñu bokk toog waxtaan ci def jàngat ci li amoon fële ca cosaan ku ci nekk ànd ci li nga xamante ne bii moom mooy sa xalaat wante ba ñu waxtaanee ba pare ñoom ñëpp euh, trouvé nañ terrain d'entente déggoo ñu fa yéene amal nag incha allah bu ci yàlla àndee face to face le 24 juillet. ca stadium Marius Ndiaye mu nar a nekk entrée payante ku dugg ci euh, face to face boobu rek seetaan ko da ngay génne xaalis ci sa poche dagg wante incha allah ñaari mbër yi fas yéene nanoo def open press booy Niang mooy njëkk a def open press le 2 out bu fa jógee Tafatine le trois août moom tamit mu def open press kon mën na ne Thialis teg na planning am bi nga xam ne noonu la nar a tërale li nga xam ne moom mooy promotion événement bi. la mu bëgg nag leket mooy jël ndam li nee na lépp lu mën di am. looloo ko ko gënal te lépp lu mën di liggéey victoire rek moom moo tax muy liggéey te nee na xam na ki muy dajal muy France nee na xam na li mu mën xam na li mu tële ba tax na li mu war a ànd ci jour combat bi yëpp dina ko àndi te li mu bëgg mooy jël ndam li rek incha allah delluwaat ci place am Leket Baara mooy yëkkati yooyu la kàddu ci journal record. waaw ah, parce que li naan euh, borom borom borom borom butuku mbagg boo gis la nekk ca biir xol ba moom mooy magasin bu ngande jaajëfal leen dig leen daje incha allah bu ci yàlla àndee suba ak jàmm. mu ngi noonu dama ne jaajëfal bu baax di am mbégte ci yéen na jàpp sama bu baax a baax ah sama équipe bi Ousmane ah, bi maa ngi bég ci baax a baax Fama sama caméra mu mën très très très fort ba suba ak jàmm incha allah dem ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen jaajëf. ñoom ñaar jéggi na junior wàcc na jël na Tapha Tine na Tapha ngi dóor ci suuf attention Sa Thiès ak ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw Sa Thiès Boy Niang daan na